salaamaaleykum sama gars yi j'espère que vous allez bien président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee képp ku doon tabax jàkkaarloog géej gi à cent mètres mbala ngay waaj a xalaat tàmbalee tabax na ko arrêté banque atlantique dinañ jàkkaarloog góor gi Bocar Samba Dièye banque yi sonal nañ ko lool ñi ñeneen sonal mooy sàcc yi sonal borom jur yi ci biir réew mi yor seenu jur ñuy sàcc jur gi kéemaane na gerte gi la ñu bëgg a xam fan lay mujj ci nawet bii ñu dëkk mal ak jiw gi ndax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye man naa def dara ci wàññi luyaas yi en plus que ñi ko moom nee nañ dañuy fas seen kanam te jëflanteeg ñoom dina jafe loolu ak dund gu cher gi ci loola la ne am na ñag ñu koy tonc naan ko président fexeel noo toppee pour haute traison président Macky Sall mu lànk ne leen man yeneen yitte laa am dafa am lu ñu diggoon Sénégalais yi ba ñu jox ñu réew mi te loola la ñuy nekk Ousmane ko jàkkaarloo ki ministre am daal ne leen amul benn école ci àdduna bu ñuy jàngalee wàllu ministre maître Amadou Ali Kane daal ne bu ñu toppee reddition des comptes yi dinañ def juróomi at yoo xam ne lépp ci procès lañ ko nar a def société civile bi daal ne mais attends mais nañu publier rapport yi comme ça ñu xam ñi sàcc alal réew mi fan lañ ak kan la. ah maître Amadou Ali Kane daal ne lancer d' alerte moom du toroxol nit wala weeje ko ci penc mi kese il faut ñu am ministre de tutelle boo xam ne moom mooy accompagner loolu ndax parti socialiste bés dina jot. ñu dajaloo waat benn en tout cas Barthélémy Diaz nee ne dafa bëgg a gisante ak président Diomaye ngir xar Ndakaaru Euh, daaka ba fukki fan tàmbali na Popenguine ñu ngi koy waajal bu baax Papa Mahi mu nga Maroc di dox jàmm diggante jullit yi am benn muxadam bu ñu jàpp moom dafa doon trafiqué ay visa 33 personnes la jël seen xaalis lu war a tolloog 63 millions xadra bi la doon utiliser pour mu nekk apaam ñu yendoog jàmm